أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ci kàttanu borom bi noo ngi ànd ak yéen ci téeréem bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al anfal samedi passé dañu tëboon ñetti aaye ñeenti aaye yi ñu waroon jël dañu jëloon aaye 24 jëm suuf dañuy dellusiwaat ci dars bi nga xam ne moom lañu waroon def tey ñu war a jël aaye 20 21 22 ak 23 mu nekk ñeenti aaya yunu sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu di jàngal ñetti mbir yooyu ba ca jiitu mooy wujub taatullahi wa rasuli war gi nga xam ne sunu boroom waral na ko sunu kaw ci ñu topp ko moom borom bi ak yonentam ñun waa Sénégal dañuy réere ne topp yàlla ak yonentam loolu farata la ni nga gëmee ne bu julli jotee da ngaa war a julli bu koor jotee da ngaa war a woor bu azaka jotee boo amee da nga ko war a génne boo amee alal da ngaa war a aji farata yooyu ni nga ko gëmee noonu nga war a gëmee ne topp yàlla akub yonentam farata la mbokk yi topp leen ñoom ñaar ca la ñuy digle nga def ko la ñuy tere nga bàyyi ko loolu moom mooy topp yàlla loolu mooy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey sunu doon gëstu di wax ñaata aaya lanu sunu borom subhanahu wa taala di digal aaya yooyu di ñu jàngal topp yàlla kub yonentam ñaata aaya la ci alquranul karim ñaata atiullah wa atiu rasul ñaata aaya la loolu moo leen di wan ne mbir mi farata la yaa ayuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamia alladi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit fa aminu billahi mu ci teg mu ci teg wa rasulihi yéen nit ñi gis nga foofu yaa yàlla yaa ayuha nnaas la wax yow Muhammad waxal nit ñi man ndaw laa lu yàlla yónni ci yéen yéen ñëpp inni rasulullahi ilaykum jamia yéen ñëpp yàlla moom nga xam ne moo sàkk asamaan ak suuf di rey di dundal na ngeen ko gëm moom yàlla akub yonentam yonent boobu nga xam ne annabiyul ummi alladi yuminu billahi wa kalimaati wattabiuhu laallakum tahtaduun wattabauhu laallakum tahtaduun topp leen ko ndax ngeen jub kon topp yàlla ak topp yonent loolu mbokk yi du lu ñuy wax ay sunna ak ay mandub loolu farata la topp yàlla akub yonent wa ma arsalna min rasulin illa li yuta yàlla nee na mësumaa yónni benn yonent lu dul pour ñu topp ko tey bu ñuy wax topp yonent ñu bare bari dañuy yaakaar ne loolu moom ah ku mu neex de mu def ko ku mu neex moom wala waxu yonent ah waaw loolu la yonent bee ko wax bokk na ci ay xeex bi nga xam ne moo jóg tey ci Sénégal mooy jéem a wàññi yonent bi ak di ko tuutil xam nga bu ngeen xoolee seen groupe whatsapp yi ngeen am loolu ngeen ci gis ay nit yoo xam ne daanaka dañuy jël ay kilifa di leen teg ci kaw sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam fekk topp yàlla yàlla ba mu ko waxee ba pare la mu ca teg mooy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul keneen wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa yàlla nee na amul ndaw lu ma mus a yónni lu dul laal la ma sàkku ca nit ña mooy nañ ko topp ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa rasul laallakum turhamun yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla ak yonentam ndax yàlla yërëm leen kon ku bëgg a yërmande yàlla topp yàlla ak topp yonent wa atiu llaha wa rasulahu wa la tanazau fa tafshalu wa tazhaba rihukum topp leen yàlla ak yonent bu leen xëccoo kon ngeen échec su ngeen échecgee ngeen yonjox seen doole daal di jeex wasbiru inna allaha maa sabirin topp gi ngeen di topp yàllaa ko yonent muñ leen ci ndax yàlla mu ngi ànd ak aji muñ ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp yonent ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla def seeni mbir ci seeni loxo ñu leen di jiite di leen tette di leen wammat ci yoonu yàlla ko yonent kon aaya yi mbokk jullit yi ci alquranul karim danañ fekk aaya yi nekk aaya yu limu di ñu soññ ci ñu topp yàlla ko yonentam waxuma yàlla waaye yonent bi du n'importe qui ci ñun déedéet da nga yandi yaakaar ne yonent bi moom ku mu neex rek nga xëy la ngaamu ci mbubbam après nga nga daal di sànni fële déedéet loolu ay caaxaan la bu leen gëm lii sénégalais yi di wax nii ci mbedd yeeg kërti kërti bu leen topp loolu kon yàlla dafa farataal ci ñun ñu topp ko moom jalla jalaaluhu waaye topp ndaw li mu yónni ci ñun ci lan ca la mu nuy digal fii amrihima wa nahyiha wa nahyihima ci digal gim nuy digal ñu def santaaneem yi bàyyi ay tereem ci araamal lu yàlla araamal lu mu daganal ci ñun moom yonent bi ñu daganal ko ñaareel mooy xurmatu tashabbuh bil mushrikina wal kafirin wa sa'iri ahlu dalal fi kulli wa fi kulli shay min sulukihim danañ jàng tey araamal gi yàlla araamal ci ñun nuy nuru nurul wala nuy toppandoo bokkaalekat yi yéeféer yi ñu réer ñi ci seen lépp dafa mel ne ñun waa Sénégal kon déggunu li li moo lay wan ne alxuraan fii buñ koy jàngi dundunu ko ndeke yàlla dafa araamal ci ñun ñu toppandoo yéeféer yi ak bokkaalekat yi ak ñu réer ñi ci lépp lu mu mën a doon ahlul kitaab yi ñuy wax tey lan lañ bokk ci ñan lañ bokk du ñu ay bokkaalekat ah kon 31 décembre rek 24 du fa lañ jóge ak première da xaw ma fin de l'année xaw ma nangam nangam ah ak yeneen nga yeneen yi nga xam ne aju na ci ñun dañuy koy toppandoo di ko def guddeeg bëccëg te mu ne xurmatu tashabbuh araamal gi yàlla araamal ñuy nuru nurul wala ñuy toppandoo ñan bokkaalekat yi kii bokkaale yàlla kenn du ko toppandoo ab jullit du roy bokkaalekat ab jullit fenn dong la ko yàlla joxoñ ne ko jëlal fii toppandool kii xoolal kii defal ni muy defee moo tax sahabatul kiram li tax ñu raw àdduna bi mooy ñoom dañoo jël yonent bi léppam bàyyiwuñ dara lépp da ngay gis ñii di naane ñu muy naane ñii di sole nu mu doon solo ñii di doxe nu mu doon doxe ñii di waxe nu mu doon waxe ñii di lekk nu mu bàyyiwuñ dara ci moom looloo tax sunna yonent bi réerul li tax tey nu mun ko dund mooy ñoom ñoo ko doon jëfee ñoo ko jàngale ñoo ko wax lépp nag ba ci nu mu doon soccoo ba ci nu mu doon peñoo ba ci nu mu doon diwoo ba ci nu mu doon tëddee sallallahu alayhi wa sallam moo tax sunnaam réerul kon dina araam ci ñun ñu yëg ko bu baax toppandoo bokkaalekat yi tey lan ngeen gis ndawi umma bi ah tey lan ngeen gis ci xale yu góor yi ci xeetu yi Seydina Muhammad ñan la ñuy toppandoo lan ngeen gis jigéen ñi lan ngeen gis dëkk bi lan toppandoo yéeféer yi yu ñuul yeeg yu weex yi toppandoo ñu réer ñi nga xam ne subhaana subhaanallah réer gi ñu réer sax rabu àll yi ñoo leen tane te di ngeen gis aaye bi ci kanam wa fi kulli shay min sulukihim di leen toppandoo ci seen comportement ci lépp lu mën a doon ñu fàtte ne loolu dafa aram ci ñun ñëpp ab jullit day góorgóorlu kem dalayel kàttanam jéem a gëm diineem dama daan wax xale yi jigéen yi démb man daal duma jaaxal ku gëmul yàlla gëmul yonent def lu ko neex waaye xam nga lan mooy sama problème su xale bu jigéen bi ñemee sol yéreem yu bon génne yaramam ci biti dangiiral ne maa tey xale bu góor bi toppandoo ko moom tamit sol lu bonam xottate tubéy ji wàcce ko bënni noppam ah man de su boobaa duma am complexe man sol sama colu diine jaar ci digg mbedd mi man it bu fekkee kuy muuru la waroo am complexe muuraay sa muuru bu ne fàtt nga jaar ci digg mbedd mi ñi ibrahima ibrahim jàngeen yonent yàlla ibrahima xisam ba gaa yi di bokkaale naan ko ibrahima tey nga dee boobaayu li ngay wax lan la leen wax ah yéen yéen a war a ragal wala man maa war a ragal kan ma war a ragal ñaar ñooñu mu ne leen yéen ragalu leen ngeen naan ma mën naa ragal seen xërëm yi ah déedéet lan la yàlla tontu foofu alladina amanu walam yalbisu imanahum ulaika hum muhtadun ñii def lu bon bu ñu dangiiralee di def seen lu bon yéen ngeen gëm dëgg di laqatu kon yéen xamu leen li ngeen yor loolu mooy wax bi kon nanu yëg ne toppandoo yéeféer yi bokkaalekat yi wa sairu ahlu dalal fi kulli shay ci toppandoo leen ci lépp ba ci seeni comportement loolu dafa aram ñetteel bi mooy bayaan anna min annas man huwa charrun min alkilaabi walxanazir am na ci nit ñi dar su tey daf ñuy leeral ne am na ci nit ñi laa wax ci nit ñi ñoo xam ne xaj yeeg mbaam xuux yee leen gën anna min annaas am na ci nit ñi man huwa koo xam ne charrun moo gën a yées min alkilaabi walxanazir xaj yi sax a ko gën ak mbaam xuux yi subhanallah kooku moom ah lan moo la tax mu egg foofu te loolu moo am nii am na doomu aadama yoo xam ne xaj yi sax a leen gën su benn mbokk day wax ne démb démb démb da ngay gis xaj bu góor ak bu jigéen nekk ci mbedd mi di séance kañ ngeen ko gëj a gis kañ ngeen gëj a gis ñaari xaj ñaari xaj ci mbedd ñuy sëy kañ ngeen ko gëj a gis léegi boo jaaree ci mbedd yi gis góor ak jigéen di sëdd di sëy wala tafu ci miir wala tafu ci garab wala dugg ci kër gu yàqu wala wala di ko def di ko filmer après teg ko ci internet bi génne ko alaysa kazalika gisu leen ko ah nga gis ku ne dung ñu ñu lay filmer waaw loolu loolu ak xaj ak ak mbaam xuux lu lu lu lu ko séparé lan moo taxoon nit gën xaj ak mbaam xuux lan moo taxoon du xel léegi nag xel moom bu dañee ci yow lan nga gën a mbaam xuux bi ak xaj ba ah moo tax suñu darsu tey yàlla di ñu xamal ci alquran ne am na nit ñoo xam ne xaj yeeg mbaam yee leen gën lu tax mu ne wa fadlan anil ibili wal baqari wal ghanami waaw nit koo xam ne yow yaa gën a yées xaj ak mbaam mbaam xuux ak xaj yaa leen gën a yées kon yow dëgg-dëgg kon gëléema la gën naga la gën xar yee la gën ak béy yi lu ko waral mu ne ulaayika al baad kafaru wa zalamu ndax dañoo weddi ba pare tooñ yàlla weddi ko tooñ ko te yàlla lam yakuni allah li yaxfira lahum wala li yahdiyahum sabila te xoolal ëllëg mun demee ba ci kanamu yàlla sunu borom nee na duma leen jéggal te duma leen jubal doomu aadama ëllëg boo nee këcc ci kanamu yàlla taxaw yàlla ne la fii nga taxaw tey kenn du la fi yërëm kenn du la jéggal foo jëm te loolu dañu loolu dafa war a leer dafa war a leer ci ñun ñu bàyyi xel ne ëllëg ak sibir ñun ñi ñëpp danañ ñu taxañ ñu taxaw ci kanamu yàlla jalla jalaaluhu te su boobaa amul kenn kuy intervenir kenn laa wax kenn tey xaw ma démb dañu ma envoyé sama whatsapp benn waaye bu ne waaw man de maa ngi leen di gis yéen ngeen di julli man nag ma jaaxle trop lu tax ngeen di julli waaw ndax gars yi ne ko ah ñun kat dañuy julli ndax dañoo bëgg àjjana mu ne man de jox nañ ma caabi ji moo ngi nii moo tax man du ma julli caabi jaa ngi nii àjjana rek ngeen bëgg caabi jaa ngi nii kon nag man moom kër gi ku fi aju doo julli gis nga wax yooyu ndaw lu ko dégg di dof dof lu ba mu dugg ci sa bopp ba nga bàyyi diine yàlla ji bàyyi julli booy dee dem safara ma ne alquran moo wax dëgg wala li ñuy wax Sénégal muy dëgg ton du leen ma de ah alquran moo wax dëgg wala al- wax yéyeen ni ñoo wax dëgg la la alquran wax waa safara ma salakakum fi saqar luñ tont fa xalafa min baadihim xalfun lan lañ yàlla wax foofu wa tabaw shahwaat fa sawfa yalqawna xëyyan illa man taaba wa amana wa amila kon kay leer na nañ ku bàyyi julli da ngay dem safara fu lu leen neex na ngeen wax bu leen neexee ngeen ne yàlla ngeen gis su leen neexee ngeen ne Seydina Muhammad moo génn seen ron lali bu leen neexee ngeen lu lu neex bu lu neex wax leen ku bàyyi julli boo dee da ngay lakk loolu bu yow mu leer te loolu kenn waru cee ragal ku bàyyi julli boo dee da ngay dem safara yàlla ko wax di ma salakakum fi saqar qaalu lam naku yonent bi nee na inna al ahda allazi baynana wa baynahum assala man taraka assala faqad kafara yon ne ku bàyyi julli yéeféer nga lii kay leer na assalaatu imaadu diin julli mooy kenu diini moo ko yenu man tarakaha faqad hadama diin ku bàyyi julli màbb nga diine ok kon dafa leer buñ nekk fii di làmbatu ak di nax suñu bopp gis nga wala fi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju gis nga xale bu góor wala borom kër gu jaaxaan ci sa kawlal di di tuur ndox di saw naan maa nga duus ba ba nga yeewu fajar wala boo yeewoo ba sa jabar ñëw ne la waaye nijaay lu tooyal lal bi ne nii fóon di nga xam ne nekkoo woon duus ba c'est ça loolu mooy wax bi gis nga fii ku fi bàyyi julli wala ku ñu nax dugal la ci caaxaan yi am ci Sénégal kiir kiir ci ay wax yu bëri ku nekk xëcc sa rajo di wax lekk ba suur li waa ji di wax ah lekk ba suur ñu jox la ataaya wala zi nga naan ba sa ñu jox la pom ak banaana nga lekk ñu jox la rajo rek nga naan wax lu la neex démb ma ak Jibril ñoo nekkoon boo duggee bàmmeel li nga xam ne gars yi gisuñu Jibril li nga xam ne Jibril mës ta ñëw Sénégal loolu moom mooy sunu darsu tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu dëgëral sunu làmmiñ ba dunu tarxiis ci kàddu borom bi subhanahu wa taala sunu borom iqra lana ya cheikh al ayat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا عنه وأنتم تسمعون ya ayuha allazina amanu
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Mhm.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
barakallahu fiik an nañu yàlla fayal la yiw sunu borom nee na yaa ayuha alladina amanu yaakaar naa baat yi fan yi répété wu na ci sunuy dars yàlla di woote yaa ayuha alladina amanu borom xam-xam ba nee na saa yoo ko déggee taxawal da lay digal wala mu lay tere waaye lan mooy kéemtaan ci woote gi mooy ki woote kan la yàlla bu ñu Macky Sall woowoon tey dinañ wuyu wala duñ wuyu Macky Sall taxawoon fii gaare 4x4 ne eh yéen waa jàkka ji di ngeen wuyu wala du ngeen wuyu dégguma tontu bi di ngeen wuyu dinañ wuyu lu tax nuy wuyu macha allah ñëppay jóg taxaw duñ yem ci sax wuyu dañuy jóg ma monsieur le président nuyu ko ñaari loxo indi ko siis alaysa kazalika parce que dañuy yaakaar ci moom intérêt wala dañuy yaakaar ci moom tey jii ñun ñii ku nekk booy ñibbi di nga yem ñibbeek enveloppe wala ah waay wax leen ma waaw ah ah quand même allahu akbar Houphouët-Boigny dafa tabax benn juma Côte d'Ivoire benn waaye ne ko Houphouët-Boigny ñëw ne ko président mu ne ah mu ne ko yàq nga xaalis mu ne lu tax mu ne jumaa ji nga tabax benn jullit du fa julli ndax nee na yow yéeféer nga da ngay font rek ala yéeféer tabax jàkk mu ne ah bon kenn du fa julli ñu ne kenn du fa julli vendredi rek mu ñëw mu fekk fa fukki nit mu dox ku nekk enveloppe cinq cent mille beneen vendredi bi mu ñëw mu fekk jumaa ji fees del mu jox ku nekk enveloppe cent mille beneen vendredi bi mu ñëw mu fekk jumaa ji kenn mënul jaar ci mbedd yi mu ne leen yàlla na leen yàlla nangul seen julli ah, yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm kan moo ñu woo yàlla ñan la woo ndax ñëpp la woo ndax ah, ñëpp la woo ñan la woo ñi gëm anañu waaw mooy wax yàlla dafa woo ñi ko gëm buur bu toll ne yàlla woo woote ci biir nit ñi li ñuy bari bari bari bari mu seete waxul yaa ayuha alladina kafaru waxul yaa ayuha annaas waxul ayuha rijal dafa ne yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm lan la ñu yàlla di doye mu ne atiu llaha topp leen ma man yàlla topp leen yàlla ah gis nga topp leen yàlla ndeke kon wax ji dañ koo waxul mu leer warunoo topp kenn ku dul yàlla loolu dafa war a leer yàlla waxul fenn nañ topp kenn amul aaya tey ñu ngi bugg a rey topp diw diw diw diw diw fan lañ ko wax ci alxuraan wax leen ma ko 114 saar yaa ngi ni génne leen benn aaya atiullah topp leen yàlla moo tax bi ñu nëbbee nit ñi yàlla war ñu ay musiba ci la dëkk bi mel ni ci lañ am problème ñun ñëpp démb wax naa xutba jumaa ma ne yàlla nu mu toll suñ ko dindee ci suñu xol yi yàlla place am yàlla nu mu toll place am soo ko fa dindee koo fa dugal day day yolom du mat ah wàcceel chauffeur bi nga dugal liir dina mën dawal oto bi wàcceel chauffeur bi nga dugal ko am juróom-ñaari at benn bu dugalee tànk yi ci frein yi sax du gis ci kaw soo ko yéegalee ci kaw tànk yi du jot du mat parce que yàlla kenn mënu koo remplacer kenn mënu remplacer yàlla atiullah topp leen yàlla dafa war a leer nañ topp yàlla nañ bàyyi caaxaan yàlla waxunu leneen lu dul nañ ko topp topp yàlla mooy lan dafa lim la sant bàyyi lim la tere li mu daganal daganal ko li mu araamal bàyyil benn borom xam-xam daa dégg benn waaye naan aouzu billahi mina shaitan rajim mu ne ko jaru ko bàyyil yëfam rek aouzu billahi mina shaitan rajim bàyyi yëfam boo waxee boo bàyyi yëfam rek am dafa problème atiullah waaye wa rasulahu gis nga atiullah wa rasulahu topp leen yàlla ak yonentam ana keneen ana keneen am na keneen fi topp leen yàlla topp yonentam lan moo tax mooy yàlla moom lañ war a jaamu yonentam bi moo leen di won nu ñuy jaamoo yàlla kan moo nu war a won nu ñuy jullee kan moo nu war a won nu ñuy lekkee kan moo nu war a won nu ñuy naane kan moo nu war a won nu ñuy tëddee kan moo nu war a won nu ñuy dundee mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam looloo tax yonent bi nekk roykaay bu mat sëkk boo xam ne ci lépp luñ ko mun a roy soo xoolee yonent yi jëlal ulul azmi mina rusul bul jël cent vingt quatre mille yi jëlal rek ulul azmi mina rusul jëlal cinq yi munoo leen roy lépp nuux ku ci tegu ibrahim ku ci tegu Moussa ku ci tegu Isa munoo leen roy ñëpp cent pour cent munoo ko ku nekk mën ngaa jël ci moom coppati ci moom tuuti leneen li amu ko amma Seydina Muhammad lépp ci moom rek nga koy fekk loolu boo ci joxe misaal jëlal yonent yàlla Nuux ah ci lan nga ko bëgg a roy nu ñu yore woon soxna amoon na soxna dëgg la nu ñu yore woon doom dëgg la amoon na doom ci lan ah tawxiid dëgg la amoon na tawxiid ci leneen munoo kaa roy ci jihaad ndax nu jihaatu jëlal Ibrahim ci lan tawxiid ci lan soxna ci lan doom waaye jiitewul woon umma jiitewul woon euh, dëkk amul dëkk bu mu jiite woon nekk buur ba amul woon wala jëlal Muusa mën nga kaa roy ci loolu lépp waaye mënoo ko roy yor roy ci yar doom amul woon doom ba nga ko yar jëlal Isa mënoo koo roy ci soxna mënoo koo roy ci doom amul woon ñaar yooyu jëlal Muhammad nag nga xool bu dee di jiite dëkk jiite woon na ko walla bu dee jihaad jiite woon na ko walla bu dee doom am na ko walla bu dee ay soxna am na ko walla moo tax yàlla nañu laqad kaana lakum fii uswatun xasana ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah wa in tutiuhu yàlla sax yemul ci loolu dafa giñ yàlla daa giñ ne suñ ko toppee rek jub yàlla dafa giñ ne ko yow da ngay jubalaate wa innaka la tahdi ila waaw ñu bu ko fee bàyyi topp keneen yéen yaakaar ngeen ne ñi ñuy topp ñi ñoo gën a ñi li ñu indi moo gën a baax li Muhammad indi damay laajte dafa bokk ci nawaqidul islam ngeen nawaqidul islam fukk la daf cee bokk nga gëm ne am na koo xam ne li mu indi moo gën a jub li Muhammad indi saa yoo ko defee rek génn nga ci lislaam dégg ngeen wax bi wala ah képp koo xam ne da ngaa gëm ni seex sàmba mii moom day côté bii moo gën a baax la yonent bi yow génn nga ci lislaam sëñ diw mii moom de moo li mu indi moo gën a baax la yonent bi indi wala li mu def yonent bi defu ko yow génn nga ci lislaam benn waay benn ca fuuta benn sëriñ da yone minen de min mbiyaani min mbiyaani ko kaari kanko ɓuri annabi nuh min mbiyan noon de kono min mbi ko nuh de ko jogino ko hewani laana kono kanko ko rewmi ko noon heƴani e laana onon haalpulaare léegi loolu wax jooju lan la nee na ñun waxuñu sëñ diw moo gën nuux waxuñu loolu ndax loolu ñeme wuñ ko waaye dañu ne nuux de li ñu ko toppoon fee suñu gaal waaye cay diw mii li ko topp ëpp na gaal léegi loolu lan la mooy lekkuma ci yàpp bi waaye naan naa ñeex bi mooy loolu delloo si leen xel yi nañ topp yàlla topp yonent bi borom bi nee na wala tawallaw anhu wa antum tasma'un bu leen ko wan ginnaaw bu leen ko dummooy te yéen yéen a ngi dégg lii mu leen wax waaw atiwullah wa atiw wa rasulahu xanaa loolu dégg nu ko suñ déggee lii ba pare nag yàlla nanu wala tatawallaw wala tawallaw bu leen wane ginnaaw ci topp gi ngeen koy topp ci digal gi mu leen di digal ci tere gi mu leen di tere te yéen yéen a ngi dégg lii kan la ñuy waxal dunun topp leen yàlla ak yonentam bu leen wane ginnaaw dégglu leen lim leen di digal ngeen def ko lim leen di tere ngeen bàyyi borom bi nee na subhanahu wa taala wa antum tasmaun te yéen yéen a ngi nii di dégg tey ñun ñëpp ñoo ngi dégg leer na nañ ne yàlla dong moo fi nekk akub yonentam yeneen yëpp ay coow la ak ay protocole te ku dee rek di nga xam loolu ku dee ba ñu taxañ la dugal la ci morgue bi ñu sang la sang la jullee la yenu la ba ci armeel yi gas ba mu xóot suul nit ñi ñibbi malaaka yi lay fay fekk kuñ lay laaj Muhammad duñ la laaj keneen kon kay leer na malaaka yi bu la fekkee ci biir bàmmeel xam nga lu lay wax maada kunta taqulu ala haada al abdu muhammada loo doon wax ci muhammad mi loo doon wax ci muhammad muhammad mi loo doon wax ci moom kon kay laaj ñu sa papa laaj ñu sa yaay laaju sa maam laaju ñu ban nation nga laaju ñu ban xeet nga laaju ñu tarixa laaju ñu njiitu tarixa ba ku ñu laaj yenent bi lañ la laaj muhammad wallahi alazim ku xamul muhammad dinañ la duma biir bàmmeel ku xamul seydina muhammad biir bàmmeel boo fa duggee danañ la wulli ay bolde ba nga ne kàcc ndax yonent bi moo ko wax amma almumin fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah amma almunafiq aw alkafir fa yaqulu a la adri yonente bi nee na fa yudrab bi mitraqa min hadid bayna uznayhi fa yasihu sayhatan yasmaahu man yalihi illa al insi wal jinn loolu yonente bee ko wax yonente bi ne ku dugg bàmmeel ñu laaj ma la xamoo ma danañ la wulli bolde sa diggante ñaari nopp yi di nga yuuxu yuuxu boo xam ne ñëpp a koy dégg ba mu des nit ak ginne ah léegi nag ñu ne la ñu dañ ñu laaj Muhammad ñun xamuñu Muhammad kon fu ñu jëm wa antum tasmaun yéen a ngi nii di dégg borom bi nee na wala takunu kalladina qaalu samina wa hum la yasmaun ngallawaay bu leen mel ne gaaña nga xam ne wala takunu bu leen nekk kallazina comme ña nga xam ne ismu mawsul la ay nit la ñuy waxal kallazina comme ña nga xam ne qaalu dañu ne sami'na ñun de dégg nañ waaw waaw yàlla ngi woote nun kay aa ñun kay ñun kay nun kay ndeke yoo waxum laa yasmaun déggunu ndax buñ déggoon la yonent ba ak yàlla di wax danañ ko def ñun kay ay jullit lañ waaye ndeysaan buñ génnee rek nga xam ne ñii duñu ay jullit ay jullit lañ waaye dañuy feetu 24 dañuy feetu 31 dañuy feetu fête des amours xaw ma fête des mères fête des amours xaw ma lan fête des morts dañuy sol colu yahud yi dañuy toppandoon nasaraan yi seen yaram yaa ngi na dung ci biti yi dañuy déglu musique dañuy lekk riba ba anal kon liñ ne dégg nañ ko anamu ah lan lañ waxoon sànq qaalu sami'na ñun de dégg nañ ku dégg nooy def ku dégg waaw ku dégg ba pare defoo ko ndax dégg nga gars yi dañ doon way naan muzammaman asayna wa diinuhu sahaaba yi noonu laa leen doon muhammadun ataana wa diinuhu qabilna ku dégg la nga dégg da nga koy jëfe gis nga waa safara bokk na ci li leen yóbbu safara mooy ñàkk a dégg waa safara bi ñu duggee safara mbugal bu métti ñu taxaw ci biir safara di yiwxu xam nga lu ñu doon wax wa qaalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair ay waay ay nun buñ doon dégg ay nun bu nu amoon xel tey du nekk safara ndeke ñàkk a dégg day tax doo xalaat ñàkk a xalaat ak ñàkk a dégg day yóbbu nit safara effectivement ku jëfandikoo sa xel di nga xam ne Sénégal lii fi nekk nii du diine ku jëfandikoo sa xel toog ne tekk di xool di xool mbir yi nii lii di nga xam ne lii yëpp ay fola ay caaxaan la di nga ko xam lii nekk fii amul benn diine waaw amul benn diine amu fi ndax diine mooy tawxiid dëkk bu amul tawxiid dëkk boobu mënut a baax nit ñi bu ñu amul tawxiid seen jikko mënut a baax xam nga tey jii chaque jour ñu ne dañuy changer président alaysa kazalik dañoo mere woon Abdou Diouf ñu folli ko ah wala lu taxoon ngeen mere ko ngeen ne daa yàq ngeen ne nañ ne Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade bu ñëwee ngeen wax ngeen folli ko ngeen ne nañ indi Macky Macky bi mu ñëwee xam ngeen lu tax bokkaale bi moo tax képp kuy bokkaale yàlla lu ñu ko jox da koy yàq yàlla bi mu ne leen bu leen takk jabar lan la wax bu leen takk jigéen juy bokkaale ba mu ne góor ñi bu leen am jëkkër da ne bu leen takk jëkkër buy bokkaale bu mu leen takk wala du alxuraan wala tankihul mushrikaati wala amatun mu'minatun xayrun fële mu ne wala abdun mu'minun xayrun jeex na kuy bokkaale yàlla jigéen ji bokkaale boo ko takkee mu bokkalaal ak beneen góor waaw bokkaale day yàq jikko moo tax suñu jikko yi mun ta rafet parce que dañuy bokkaale yàlla xamuñu yàlla ku xamul yàlla sa jikko mun ta rafet jamais dañuy sono suñu bopp suñu borom nee na inna charra dawaab li gën a yées ci njaay àll yi lan mooy dawaab daaba lan mooy daaba ñu yaakaar ne am na ñoo xam ne yaakaar ne daaba mooy xar dëgg la ci la bokk fas mbaam béy bukki aha ci la bokk waaye daaba mooy lépp luy dukkat ci kaw suuf loolu daaba la maa ya dubb alal ard lépp luy teg tànk di direeku di dund ci kaw suuf loolu daaba la ñun ñi ay daaba lañ di waaye lan moo nu séparé mooy yàlla moo nu gënal ci yeneen daaba yi may nu xel defal nu imaan wala ñu nekk ay nit yu baax yu yàlla bëgg ndax lan yàlla moo nu fonk wala qad karram na bani aadama waaye bani aadama daaba la borom bi nee na inna charra dawaab li gën a yées ci daaba inda allahi ca yàlla gis nga fii nii bàyyi leen xel bu baax yàlla nee na li gën a yées ci man est-ce que dafa ne mbaam foofu ah dafa ne xaj dafa ne sindax buubu ko la lu mu wax ah a summ lan mooy summ mooy koo xam ne dafa tëx mu ngi ne ak ñaari nopp da ngay wax ba sonn mu ne këcc këccaaral ni la lay def nga naan ko yàlla nee na yonent bi nee na day julli si jumaa lal si jaadu première sàpp naan ko yàlla nee na yonent bi nee na mu ne nii nga yaakaar ne moo ngi gis moo ngi dégg bu génnee dama imaam imaam bi moo mun a fen moo waaye ki ngi bëgg ñoo tere noos quoi bëgg ñu dund waaye booy dañuy dund nun waaye dañuy dund est-ce que ko déggoon na a sum dafa tëx du dégg du affaire yi du dugg day ñëw rek toog te loolu moo nu dal nii wallahi alazim tey jii moo nu dal dañuy dégg mais affaire yi du dugg day dugg sax jaar nii dem wallahi alazim yàlla nee na a sum ki xam ne dañoo daaj bak tëx yamu ci loolu mu ne albukm ba pare muuma duñ wax dëgg dangay gis ko xam ne dëgg ngi nii mun a pat nekk ci dëjaay di jataay wala nangam nga gis ñu naan ku dul julli baax na dara nekk ci ku dul woor amul problème yàlla xol lay fay nga ne pat te xam nga ne kii day fen ndax julli boo amul importance yàlla duñ ko sant julli bu amuloon solo yàlla du yëkkati muhammad ba kaw asamaan jox ko ko ba pare ne ko na ngeen julli julli bu amuloon solo yonent bi du nekk ci sukuraat mu nekk aaxiru wasiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mu naan assalaa wa ma malakat aymanukum ba kenn déggatul gémmiñ gi muy wax julli bu amuloon solo sahaaba bi du ñëw ne ko wax ma lu may dugal aljanna mu ne ko del julli a inni ala nafsika bi kasrati sujud del julli del julli lu bari kon kay fu ñu jëm léegi bu ñu nee julli amatu solo ah julli ah julli fii de kenn du fi julli fii am na kër yoo xam dégg naa am na dëkk yoo xam boo jullee ñu ne la tonnil tonnil di ngand ngandulu tegal la pot ne la tonnil su nga julli suuf sëpp tonnil këppi ko fële fii kenn du fi julli boo wóolul sa bopp nun wóolu nañ suñu bopp di ngand ngandulu inna charra dawaab inda allah assummul bukm allazina la yaqilun gis nga yàlla dafa ne ñooñu amuñu xel wax na dëgg sunu borom moo wax dëgg allahu akbar allazina la yaqilun amuñu xel dañoo tëx dañoo muuma ñàkk xel gis nga borom bi waxul mbaam xuux waxul fas waxul béy dane ñi gën a yées ci mbindeef yi daaba yi mooy ni nga xam ne duñu dégg duñu wax ba pare amuñu xel ndax ku am xel li nga xam ne yàlla kenn du ko bokkaale yàlla kenn du ko dendaleeg dara yàlla du santaane ñu bàyyi santaaneem di def santaane keneen ku am xel du def loolu gis ngeen aaya yi def ñuy def ñuy soññaat ñu gën a góorgóorlu ñu utiliser suñuy xel ndax ñàkk ñàkk du jubanti sa xel musiba la lu toll ne xel xel lu muy jëriñ nit tey boo nee cëpp ci kër asalaamaaleykum ñu ne wa aleykum salaam exil exil nga dugg ci salle bi toog nga gis gaz bi ñu ngi ci teg baraada bi fauteuil yaa ngi nii fooy toog lu tax nga toog ci fauteuil dañ la na toogal ci fauteuil bi kenn waxu la dañ la ne duggal toog foo toog lu tax nga toog ci fauteuil bi ah sa xel nga utiliser nga xam ne fii kenn du fi toog gaz kenn du ci toog jubaloo waañ beneen ndaw si teggil cin bi loo def ni nga damay toog ci gaz bi dafa lool wala ah lu tax parce que sa xel moo la wax ne ah yow xam nga ne fii kenn du fi toog fii la ñuy toog nga daal di jubal fa ñuy toog nga daal di toog boo ñëwee nga simi say dàll fële ci buntu bi nga ñëw toog bu voilà bi ñuy lekk bi lekk jotee nga tibb defoo ci sa digg bopp foo teg lu tax da ngaa xam ne xel bi dafa leen a yow xam nga ne dofoo fii la ñuy lekkee kañ nga dof ah li ngay defee jugaloo say nopp fii nga dugal ndax sa xel moo la ne yow xam nga ne nopp du lekk nopp pour dégg la bu ñu fontoo ah léegi nag yow yàlla sàkk la ne la jaamu ma nga ne déedéet di gëmm gëmmalu di tëx tëxlu di dof doflu déedéet yàlla kay ga di fi mu nekk nii ñi bañ a jaamu yàlla yëpp dañoo tëj seeni xel ñoo ko tey dañuy tëj xel yi ngir ak di indi ay lay yoo xam ne eh, xoolal ki ne yéen lu tax ngeen di julli gaa ne ah ñu de wax dëgg yàlla dañuy julli ngir bëgg aajana mu ne man de caabi jaagi ni dañ ma koo jox génne la jaabi waa caabi aajana moom fu ñu ko jëlee ñu ne li ñu jàngoon ci sunna mooy caabi aajana Muhammad sax yorewu ko Muhammad yorewul sax caabi aajana ñu ne loolu lañ jàngoon te du ko yo- yorewu ko de ëllëg yow mal xiyaam bu dekkee mooy njëkk a dekki mu jubal ba buntu àjjana mu daal di fëgg kii garde ridwaan la tudd ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma waxoon balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare kon joxu ko sax caabi ji nee na balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare léegi muhammad bu yorul caabi àjjana kan ma ko yore beneen bi mooy waa àjjana fan la nekk ba ñu joxe caabi yi xanaa xamu leen ne caabi caa àjjana amul ay caabi nii ay duwel nii girij kirij dem leen ci hôtel yi benn carte lañ lay jox rek nga ñëw ne nii carte bi bunt bi ubbeeku nga ni ko nii carte bi bunt bi tëju wala di nga yaar ngay dugal naan kuc kuc kuc kuc kuc kuc kuc ah wallaay gis nga il faut ñu góorgóorlu bàyyi suñu xel yi balaa nu nuy nax même bu fekkee am na miftaaxul janna am na caabi waaye da ngay dégg caabi rek nga def ne comme caabi yii la ah ah da nga dégg miftaax rek nga defe ne caabi rek nga defe ne comme caabi yi ñu jaay ci marché yi la léegi nga dem jënd benn caabi nga yore ko nga ne bi mooy caabi àjjana yow bi nga deewee dañ laa suul ci suuf si ñaata at xanaa caabi ji bokk foofu su xumaat na su su si lekk na ko moog sellir ba la dootuñu communiquer xanaa beneen bi mooy bu ñu lay yóbbu bu ñu lay suul dañoo yóbbaale caabi jël la ko jox est-ce que di jara seen xel yow waa ji bi muy dem sax dañ koo simmi mbubb yeeg lépp lañ simmi quoi tegal fii waaw déglu lépp la gaa yi nangu mbax ne bi sax ñu teggi quoi gégg eh foo mës a gis ku dee di sol mbax ne tekki verre yi tekki montre yi waa léegi caabi ji moom fu ñu ko dugal ba mu dem yóbbaale ko xanaa dañ ko dugal ci biir ci biir morso bi ah beneen bi mooy bi mu defee foofu fukki at suuf si lekk na yax yi lekk na yàpp yi allahu akbar lekk na yére yi yax yi funax na kawar yi ñoppatiku na caabi ji caabi jaana mu waaye bu ñu nax suñu bopp waaye nañ leen jaamu ji yàlla bu ñu nax suñu bopp na leen wax nit ñi dëgg nañ leen libéré nit ñi ñu dem jaam loolu Moussa waxoon banu Israël Firawna libéré nit ñi ñu topp yàlla loolu la ñu war a wax waa Sénégal libéré leen nit ñi ñu topp yàlla. borom bi nee na ñii nii ndax ñàkk xel bon walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum gis nga ñii dañoo yées ba nga xam ne yàlla bu xamoon ne ñii sax lu baaxang ci ñoom dina dina dina leen déggloo li tax dégguñu mooy yàlla ne xam ne ne ñii baaxuñ walaw alima allahu fihim xayran su yàlla xamoon ne yiwam ci ñoom ñii buñ déggee sax waxu yàlla dinañ kii kon danañ dégg waaye dañuy taxaw dégg ba pare yenn saa yi sax duñu bëgg a dégg waxu yàlla ji soo nee na ñu ne non non non non sawaay sawaay sawaay xoolal affaire yàlla moom bu ko fi wax yow yaatal ay yàlla yéen yàlla yàlla yàlla yàlla bu leen ci sonal da ngay dégg leen ko wax ndeysaan yenn saa sax nga gis kuy daw jàkk wu jàkk ji mu fi du ma fi ñëw boo fi demee wu da ngay tiit dañ lay tiital dañ lay kii dañ lay ah yàlla nee na loolu lu ci diidal nit fan nga jëm boo xam ne doo fa jële dara sunu benn paa day ñëw ci jàkk ji nee dafa tukki benn dëkk mu ñëw fekk julli jot mu dégg nodd julli jot mu gis gaa yëpp jàpp lal si jaada yi ci bunt ci bunt ci digg kër gi mu ne nit ñi ñu di julli mu ne te jàkk jaa ngi nii zéro mètre mu ne moom mu jàpp rek dem jàkka ja yaay waxuñu ko dara mu dem rek ñëwaat mu fekk ñu laal si jaada yi mu ne ana si jaada yi gaa yi ne ko lu xew mu ne wëy li xam julli sëlmal une minute gaa yi ne ko waaw du yow fii nga gis nga ñu ñu julli yow nga ñëw ci dëkk bi nekk gan doo laaj ci gis nga ñun waa kër gi ñu ngi julli bi da nga xamante ñoom it du da nga yaa ñu gën a gëm yàlla demal la la la tax ngay julliwaat moo tax nun nuy julli fii. gis nga loolu mooy wax bi kon yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko borom bi nee na ñii su ma xamoon ci ñoom yiw danaa leen dégguloo waaye walaw asmaahum la tawallaw wa hum mu'ridun yàlla nee na ñii su ma leen mayoon xel sax dafa leen nopp nu dégg ba pare danañu waaw yàlla wax nga dëgg de waaye nag waaye nag yàlla yàlla dëgg la de yàlla wax xam nañ ne lii nga wax dëgg la ñun danoo war a julli danoo war a woor danoo waaye nag waaye waaye xam nga rek foog ñu cakaay tuuti nag bàyyi ñu foo rek damay branché wu ba ci kanam bàyyi ñu branché wu ba ci kanam bàyyi ñu dugg ci see bi quoi ñu bondee ba ci kanam quoi bu ñu demee ba xaw a màgget nag ñu dem màkk nu tuub dégg nga dégg nga yàlla dinañ ñëwaat nag waaw ñun waa Sénégal loolu la ñu def di même xale sax boo bëggee dem màkk lu lay wax non non non yow tamit dox doxal sa papa ak sa yaay yow âge bi xam nga war a dem màkk ñun ñun ñii ñëpp moo tax fii yëpp koo fi ne dem màkk da non non man de ba ma yóbbu sama papa ak sama yaay ba pare alaysa kazalik même sax ku fiy julli non si booy booy temps yi affaire yi ni nga ko jëlee metti na de xaaral tuuti booy xanaa xamuloo ne julli julli yi da ngay dee de même boo nekkee xale sax ndeysaan ngay jaamu yàlla nga dee lu ñuy wax xamoon nañ ko kii xamoon nañ ne day dee ndax kii julli guddi julli fa jëg suñu wenn waaye di julli day naafila di qiyaam julli salaatu duha nijaay ji gis ko dañu ko non c'est pas possible tu prier comme un prophète yow da ngay julli comme yonent bu yàlla yónni am benn jigéen boo xam ne jëkkër ji daa tukki dem mission ndeysaan mu gis sunna ginnaawam julli naa fi la jëkkër ji ñëw gis ko ngi muuru jëkkër ji moo noppi guddi jot ndaw si jóg sangu julli naa fi yooyu beneen guddi jëkkër ji eh eh eh eh yow lu sa problème bu ma fontoor yi sa julli bëri yi Sénégal ndeysaan walaw asmaahum la tawallaw wa hum muridun ala nee na ñii même bu ma leen déggloo woon danañ fi ne ñukk mbir mi won ma ginnaaw acca dem defi lu leen neex kon ixwatal iman lii mooy dars tey ñu jéggalu njuum tey ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu sabaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu